lundi 18 septembre Nyongi Liberté 6 15 heures Nad butang tàng jër xol yi tàng am 20 ans binu ñu jam ci baat ba mu sedd guy mi ngi ay chinois mom Golden Sun ki def tef bobo, dafa daw ndax coow lii dafa ne kurus nit ñi di yuuxu jaaxle deret bi waa ji daldi duggaat ci biir baar bi awe ci port bi nekk ci ginnaaw loolu firndeel ni miin na bërëb ba waa koñ bi nee nañu xamoon nañu lii bettu leen ndax ay xale ñooy ñëw ci baar bi teg si dëkkewuñu lu dul màndi ak xeexoo ki moom kër gi mi ngi tudd Ousmane Diop ñu joxoñ ko baaraamu tuuma nee nañu usmaan ay auberge baar ak xale yu amul jëkkër rekk lay luwe ci biir këram ñuy def naka sudul noonu suba ba guddi jot ñoo ngi toog di xaar fu lanket bi di mujj ndax polis teg na ci loxo ki def ñaawteef boobu ñi ngi koy seet jotaguñ ko Ah, Il femme femme euh, prostituée son copain même pas minutes mais mais est-ce que copain moko parce que y a source yu ne du copain mais kenn client hôtel non je sais pas parce que le xam nga milieu fi milieu copain nga copine milieu ban heure la. ay boor 4 heures la am 4 heures 10 lañ ko fi rey te lii dafa ñaaw ay xale yu ndaw dong fi ne ñu am 1300 1400. waaw dañoo toog fii fi lañ toog sax fi ñu toog ne lañ toog kom que dañoo jàkkaarloog baar bi dañoo toog bi sax rek dégg kirim daal dégg kirim taximaan bi ko wàcce woon seen client bi mujjee dem kee jaaree fële. jot nga ko gis fan lañ ko jam. moom si karam lañ ko jam quoi si karam mais loolu métti na waaw. lan leen ko jamee. paaka loolu moom la paaka paakaay def noonu waaw. xale bu góor bi mu génnee est-ce que yéen fii la leen fekk. non non parce que dafa dugg si fii la duggee si biir baab la duggaat génnee beneen porte waaw kooku mënoo si kii waaw ñu ñun ñoo ko toog fii waaw ñoo ko toog fii c'est la première fois c'est la première fois. dañoo war police la ñu woote ak sapeur pompier mais dañoo yéex a ñëw. xam nga dañu doon daw di génn nit ñi dañu doon daw di génn nit ñi wax ñu ne dafa nit dafa deen nit ñëpp nag di ñëw fii dafa amoon embouteillage sax dafa amoon embouteillage ah, xam nga kon ci biir ñoo doon génn waaw caaka ji fan la dëkkoon xam nga am na doon fanaan di fa nelaw ñoom affaire bi yëguñu ko ba bi ñu nit ñi bare ñëw lañu daw di génn di làqatu affaire bi amee après police bi mu ñëwee rek la tëj waaw lañ ko tëj lañ dàq nit ñi tëj affaire yóbbu ndaw si biñ ko yóbbu après lañ tëj ba fii kan moo moom kër gi kër gi ay chinois ñoo ko moom te chinois yi moom moom ça va quoi sonal nañ trop côté bi parce que fii ñoom parce que fii amaa ñoom ñu fi ñëw rek fii amoon na jàmm quoi xam nga alors que bu ñu fi ñëwee benn guddi gi doo mën a nelaw embouteillage yi day bëri fii policiers yi nekk fii nit yi nekk fii loolu kese kese baaxul fii côté bi quoi parce que mosu fi am non non fii mosu fi am. ñan ñooy fréquenter bar bi. mais bar bi souvent xam nga bar bu nekkee sa koñ ñu dëkk sa koñ bi dañu fa fari di fréquenter.

dafa tabax ay auberge am ak ay cantine am nit ñëw xoolul moom xoolul lu satisfaire euh, ay clients moom dafa xool lu satisfaire moom boppam quoi parce que moom loolaa gis quoi parce que nit soo jëlee sa produit di ko tabax da war a xool yow loolay satisfaire quoi pas de pas de pas de satisfaire si clientèle si côté immobilier quoi. ndax fii baar lañ fi jëkkoon a def man dama xeex ba loolu amu fi mu ñëwaat auberge ak baar ñëwaat fi booboo gën a bon. ca koñ bi yëpp naqaru nañ ko mais mënuñu ci dara àndandoo wuñu wuñu dem naa ba ci chef de quartier bi bañ ko fiy def wax ko ma ne ko dégg naa bële dañ leen a fayoon ngeen bàyyi fi affaire yi nangu leen cee wax man ñett ñu bokkut ci quartier bi ñoo ma wax loolo mu ne moom yëgu ko dafa xëy rek xëy gis fi baar bi mooy chef de quartier bi baax. Euh, état bi dafa war a jël ay mesures def commission boo xam ne contrôler saaru aberti yi état amul lu mu mënut. fii c'est que état bi décision lañ mën a ferme yuñ dul def loolu mooy problème bi mooy defoo kii mais ak yar moo amatut yar yar yar amatut àdduna yàquwut nit ñee yàqu